yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu ñi ngi nuyu ñëpp nag waaye tey nag dañuy beral euh, nuyu suñu mbokku lébu yi rawatina nag ña nga xamante ne bi ñu nga dëkk fële euh, ca baar ñi mbokk yi ñoo ngi sant di gërëm ñëpp den fàttali ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT seen émission euh, tam tam dooratina mbokk bi ñu ñëw yéen nag ci li nga xamante ne bi mooy mbirum environnement ànd ci ak suñu xarit Marème Meng Marème nag lu mu ñu indil yaakaar naa ne mbokk yi saa su ne dañu koy waxtaanee waaye nag tey danoo am ab oustaz nga xamante ne bi tekkal nañu ko suñu suuf si xamna naa loolu yëpp mbokk yi dinañ ci ñëw yaatal waxtaan bi ak suñu invité bi nga xamanteni bi on aura le plaisir présenter ko dans quelques instants buñ dugg yéti ci loolu mbokk yi dañu ñëw ak yéen nak ci mbirum littérature sa su ne dañuy am plaisir ànd ci ak suñu xarit Abdourahmane Abdourahmane tay lan lañu indil ñu ne dañuy rendre hommage ku mag ku nga xamanteni bi génn na àddina defe naa ne sénégalais yëpp xam nañ ko muy Hamidou Dia waaye nag am na keneen ku nga xamanteni bi mbokk yi moom tamit yàggul tamit génn na moom tamit àddina muy Ibrahima Sow danañ ci ñëwaat bu baax a baax mbokk yi buñ ñu jógee ci loolu ñëw nag ci musique d'ici et d'ailleurs ànd ci ak suñu xarit euh, vraiment Del Malik, mi nga xamantene bi fu ne lay dugg tay nak daf ñuy présenter ben artiste bu tudd Marasta mu ñëw nak di ñu présenter euh, clip bam bu ñu duppé work bu ñu joggé ci loolu sa su ne xam nga né dañuy jéxal ak vue sur la toile dañuy kontaan nak vraiment parce que nak euh, invité yu mak lañuy faral di am way nak invité yi dal dañoo nek ñu nga xamantene bi machallah sank ma maa ngi koy wax ay référence lañ ci dëkk bi ñu ci jital nak madame Woré Gana Seck di directrice

plateau bi. Uh-huh. man tamit toujours euh, mbégte bu rëy la ma teew ci plateau bi. Uh-huh. Euh, di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy taamu di seetaan uh-huh. rawatina tam tam. ak surtout émission mardi bi ak rubrique littérature di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom laa bokk plateau bi et puis ak suñu invité yi euh, docteur Diallo moom du invité ci kër gi la bokk tout à fait ak sama cousine parce que dañuy waxtaan sànq mbokk feeñ fi madame Waré Seck ñoo xamante ne ñoo bokk donc très très bien mhm. ñi ngi de di ak Meng Mariem nous mhm. ah, li environnement mu am solo lool ci euh, euh, j'ai le plaisir hein, à chaque fois de le répéter euh, ngarañu suuf si mhm. ñi ngi lay nuyu di toujours un plaisir en tout cas Mariem de le recevoir yaa xam merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax mm-hmm. tey it ñu ngi tàmbali it di nuyu suñu invité yi nga xam ne it xam nañu ñàkk nañ jot waaye ñu ngi fi ñëw mm-hmm. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di mm-hmm. nuyu Abdourahmane mi ñu bokkal plateau bi c'est un plaisir aussi yaa xam di partager plateau bi ak yow merci ngi sant di gërëm sànq maa ngi koy wax ay invité yu màgg saa su ne waaye nag ñii dañuy euh, ñu nga xamante ne dañoo sori ci ñun muy madame Woré euh, Gana Seck muy référence ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir sànq maa ngi nuyu defe naa ne euh, lébu yëpp di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan waaye rawatina lebu yi nga xamantene ne bi ñom ñu nekk fële ci bañi nga mm-hmm. soxé ko barñi am tamit liggéey bu rafet bam fay def mm-hmm. ñi ngi lay dalal jamm c'est un plaisir en tout cas de vous mm-hmm. recevoir jërëjëf ya xam contane nañu torop ci ci plateau bi légui si environnement ngeen ma invité mais ma ngi rendre hommage tam suñu mag yi fi ndax té sama mag aussi si monde littérature la bok Rahmatou Seck Samb biñu primé fan yi grand prix ba nopi mu defal fu lébu yëpp ñëw sargal ko tam euh, samedi bi passé waroon ngeen a ñëw xam naa. merci beaucoup dinañ ci ñëwaat incha allah. <laughs> incha allah <laughs> dinañ ci ñëwaat en tout cas ñu ngi kontaan di la euh, recevoir fii ci plateau Tam Tam waaye tamit euh, sànq Abdourahmane mi ngi koy wax naam tey invité la waaye nag ci kër gi la bokk ndaxte boo leen gisee daal bibliothèque bu rafet boobu lee muy toog ak ay invité muy le docteur Abdoulaye Diallo directeur Harmattan en tout cas c'est un plaisir à chaque fois di ak yow parce que dañu koy wax saa su ne mënu ak yow tamit ay xam-xam yu bëri lañ ci lañ ciy jëlee ñoo ngi lay dalal jàmm maa remercier ya xam da ngeen a baax rek waaye <laughs> am na ñu ma gën a euh, qualificatif yi ngeen di wax mhm. tay it ma am mbété tout le temps mhm. di delu ci ci kër gi mhm. surtout ci sen plateau bi di rafetlu tam liggéey bu rafet di nga nekk di def parce que euh, ñun amuñu lu dul livre xamuñu lu dul livre ku ñu xajal daal wax dëgg yàlla yaa ñu moom yàgg nañu ko kaas fépp mais euh, bu ñu dans euh, daanaka RTS 2 dal mhm. yeen mom déjà émission bi ñuy def le monde des livres. absolument ak tous les mardis Abdourahmane mi ngi recevoir ay euh, auteurs ak ay écrivains. Mhm. ma am aussi surtout daje fekk muy soxna su mag ci suñu kanam pourquoi parce mhm. que. dafa nekk di def liggéey goo xam ne. daanaka suñu ëllëg ñun ñëpp ci la tënku. dëgg la voilà te it soxna Wore daam la boo xam ne daañu ci dellu si ci kanam. Mhm. daanaka li ñuy wax naan on est jamais prophète chez soi. dëgg la c'est-à-dire daanaka bitim réew la ñu ko gën a xam. Mhm. la ñu gën a xam njëriñ li mu nekk def ko suñu réew. Mhm. xam naa bu ngeen waxtaanee ak moom ci kanam bu soobee yàlla daan ci am lu ñu gis. incha may nuyu ñii ñuy seetaan aussi am mbette ci teewaat fii ci plateau très très bien defe naa ne xam ngiñ ko xam ak fonk gi xëy na moo tax tamit ñu invité ko ci plateau Tam Tam. pour gën a yaatal waxtaan bi jëmale ci ko ci ngarañu suuf si mbokk yi justement ñu ñëw ci environnement ànd ci ak

andando euh, di métit lu loolu waaye nak mbok yi dañuy euh, dem xol lamu ñu ci indil bu ko defee mëna xol nak lañuy def pour trouver ay solution parce que nak machallah solution day am euh, ñu dem mbok yi delu ci wat fii ci Sénégal dox bu geej bi di dox jéggi doyo doyoo kër yaa ngi dem barab yu lebi daan defé seeni aada gisatuñu ko mu doon ay jafe-jafe yu askan wi di jànkonteel géej gi mu ngi nangu suñu kër yi mu ngi ñuy metti xam nga te ñun foofu lañ am comme suñu maam yi foofu lañ leen fekk xam nga ñun tamit foofu lañ am quoi léegi état bi lañ sarax rek jàppale ñu xam nga ñu defar suñu kër yi xam nga wala bu mu am feneen fu ñuy yóbbu aussi tamit moo gën quoi parce que géej gi xam nga tôt tard day ñëw nangu suñu kër yi day metti nag si xol nag xam nga metti na si xol trop mais on n'y peut rien quoi parce que yàlla moo ko fi def quoi on n'y peut rien. ñenn ci nit ñi jàpp nañ ni dëkkuwaay yi dañ ko war a ndax yenn jafe-jafe yi nit ñi di jànkonteel ñoo ko seen bopp. booru géej moom boo fa tabaxee rek géej gi bu nangoo sa kër yow la parce que boo ñëwee ba si taatu géej gi nga tabax fi ndox bi bu ñëwee dina dina dugg ci biir kër gi mais bu fekkente ne danga nga bàyyi taatu géej gi nga dem ci kaw ndox bi du la fekk. bu dee ñenn ci waa askan wi jàpp nañ ni nit yi ñoo war a jël seeni matuwaay ñeneen ñi ñoom jàpp nañ ni ndogalu yàlla la. géej gi yenn saay day fer dema dema dem ba biir géej jekki ba sa yàgg fees di ñëw ndox moomu nag mooy dox di ñëw mooy nangu kër yi. ndax boo xoolee bu njëkk géej gi dafa dandu woon te léegi mu ngi dox di ñëw di jege kër yi. dëkk ci wetu géej bari na ay jafe-jafe ndax kenn xamul kañ la géej di yëngatu ñenn ci waa population yi ñu ngi ñaax ñëpp ñu moytu loolee ngir ñu moytu yëngu-yëngu géej wi. man benn affaire laa leen mën a wax bu fekkente ne mën nañ éviter côté géej gi ñu bàyyi ko bu fekkente ne mën nañ dem tamit jënd yeneen terrain yoo xamante ne nekku ci booru ndox bi tamit loolu moo gën. gouvernement wu Sénégal ñoom jël nañ ci ay matuwaay yu yemb ngir askan wi mën a nekk ci jàmm ci loolu sax la def ay brise ca sali ak Tëngéej ci foofu ci Thiawlène. waaw ñu ngi gërëm di sant bu baax a baax Mariam kontaan nañ ci sujet ba nga nu indil waaye nag ñu gis nag ne que vraiment nga ñu suuf si problème la moo ngi fi waaye nag Sénégal mu ngi quand même jël ay matuwaay. waaw keñ yaa xam Sénégal mi ngi jël ay matuwaay yu yemb sax jëmale ci wàll woowu mhm. ndax bu ñu xoolee foofu ca sali mhm. gouvernement wu Sénégal lëkkaloo na ak CSE ak ONG Green Sénégal mi nga xam ne moom la Madame Waré Gana sekk mhm. bokk ñu jël ay matuwaay def ay brise foofu ca sali ca caw Thiawlène it am na ay matuwaay yoo xam ne it pare nañoo pour def fa maanaam ay xeer yi ñu fay war a tekk ngir baale géej gi am na wàll bu mu am sax naam nit ñi tamit ñoom ñi ngi xaw a jël matuwaay ndax ñi ngi xool it am na ay organisation yoo xam ne population bi ñu ngi koy organiser wu mhm. yenn parti yi di fa taxaw di surveiller ngir yenn yi ñu bañ a def ay mbalit wala dem indi ay jafe daal yi nga xam ne mi ngi jëm ci wàllu woowu aussi. Mhm. ah très bien donc madame Woré gis nga euh, vraiment li nga xamante ne bi indil nañu ko tey sujet bi defe naa ne. reportage bi ñu gis moom euh, xam nga Marème Fall la am def na tëngee ci wala <laughs> mais boo ko gisee da nga mën ni bari nga nekk wala sali nga nekk. Uh-huh. ndaxte. xale bi nee na que waruñu dëkk si wetu tefes gi. Mhm. mais dañ fa dëkkoon ba noppi nag géej gi mu yokku. Mhm. lu tax géej gi yokku. Mhm. changement climatique bi ngeen di dégg. ndaxte yeneen dëkk kaw yi dañuy polluer di jëndi ay gaz carbonique. léegi glace gi di seey. bu glace gi seeyee géej gi gën a mag gën a gën a kawe. bu géej gi kawe nag dal si suñuy kër. te nun dañu nekk ay dëkk yoo xamante ne ñu néew doole. loolu moo tax li ñuy wax si environnement nous ñu def ko accord de Paris mooy dëkk yépp dañuy toog. Mhm. dëkk ku nekk benn voix nga am. Mhm. ñu voté ma koy mhm. tax na ñu accord de Paris. d'accord ñëpp d'accord ne changement climatique am na. érosion côtière sunu priorité. changement climatique si érosion côtière nga nañu suuf si. Mhm. mooy loo xamante ne ñun doon nañ si taxaw. Mhm. te taxaw nañ si ndaxte gis nga li fi xew barka démb. waaw ak mhm. président France bi fi ñëw. mais fekk na nag Sénégal jël ay matuwaay. président Macky Sall jël na. lu Saint-Louis. Mhm. ak lu mel ni Thiawlène ak mhm. yeneen i dëkk yi. Mhm. def fa ay ay moyens yoo xamante lutter contre l'érosion. léegi justement ci <laughs> matuwaay yooyu laa bëgg nag nga nga ñëw ñu expliquer parce que dañuy faral di wax ne que amna am na doole bi nga pour am lu ko baare dina doy waar à am na nag ay mbir yi nga xamante ko fiy pour nak, loolu mën a arrêté. xam nga loolu euh, apport financier. bu indi mais am apport technologique amna ay chercheurs yu fi nekk yoo xam ne waa université. Mhm. wala waa centre de suivi écologique wala ñun si ONG yi. Mhm. xalaat nañu ne code bi mhm. mesurer nañ ko ne code bi 718 km. la. am na côte boo xamante ne ay suuf la. comme la grande côte. am na côte yoo xam ne ay xeer la. comme boo gisee Mamel. wala fii mosquée de la divinité. wala fii ci euh, la place du millénaire. wala à Popenguine ay xeer la. mais am na côte boo xamante ne. ay ay gàncax la. boo demee mangrove bi nekk à euh, Fatick. wala Casamance mangrove la donc ñun am nañu ñetti xeetu côte. mais code bu nekk dafa am lu gën a métti si yow. ndaxte ñi nga xamante ne ay suuf la. bu géej gi gànnaxee. ba géej gi am doole day jël suuf si yóbbaale ko. mais boo ci defee ay brise lames. n'est-ce pas wala nga def si ay digg dina tane. boo gisee noo koy faram fàccee ci wolof pour ñi ñuy. non brise lame mooy di di rey gànnax bi. Mhm. brise lame. بو ديمي تي مسك دي لا دي في دي غيس غني تفس امنا فا با مول يانغ في غاري لوتاخ داك تي سي امنا اي خير يو خامني موي واتي غنخ بي بودي جيلي ايل مدلين لا مادلين غيس ني سومبا جون امنا تفس امنا تفس لوتاخ سومبا جون ام تفس ا غال يانغ فا دغلا داك تي ايل دي لا مادلين بريز لام ناتوريل لا ليغ نك بو ني سالي

Avec le ah, centre 700 mètres là, mhm. ça a coûté 3 milliards 700 mhm. mètres 3 milliards beau qui c'est tout le littoral sénégalais c'est 718 km. Mhm. pour vous dire que milliards milliard il soxla dina nar a bari loolu nous tax ñun suñu ñaxtu bi yëpp bu à l'international nous nan à l'international. nous ba ñi ci gi ak jigéen ñi fay liggéey. ak dëkkuwaay ya fa nekk. ñu jéem ak saafara ko. léegi ñu ñu ne nag ñun dañu bëgg ñu créer benn loi. waxtaan nañ ci circuler nañ ko. la loi du littoral. loi du littoral boobu depuis ay at nee dañ koy voté. loi littoral boobu ba léegi kenn vote ko. te loi boobu dañu ne buñ ko voté. Mm-hmm. dinañu créer benn fonds bu tuddee le fonds national du littoral. Mm-hmm. bu ko defee. bu ay jafe-jafe amee bu ul bi ñëwee. Mhm. ba toj kër yi. Mhm. ñu jéem a xool nan littoral mhm. parce que littoral bi mooy sunu famille. absolument littoral bi. notre sunu patrimoine. littoral bi notre territoire. très très bien donc que sur notre territoire il faut que.

31 milliards absolument Et peut-être ay koppar yoo xam ne mën nañ outils. parce que fond vert climat on est à Copenhague. nous mhm. avons ñu demaat euh, accord de Paris. Mhm. ñoo ne.

parce que euh, bu ngeen dégloo ci njëlbeenu waxtaanam. Mhm. mi ngi ne euh, lay yokk géej gi. Mhm. ci fonte des glaces yi. Mhm. lay jóge xam nga li ñuy wax naan ñun wolof dañu ko lépp naan ay du yem ci bopp borom. dëgg la. mooy lii parce que tey jii nii bu fekkoon ni environnement bi respecté woon nañu ko bu fekkee ni doomu aadama newutoon tout le temps di yàq rek di yàq yàq jaww ji ñu nekk daanaka lu bari loo xam ne ñi ngi koy dund tey jii duñ ci fekk ñi ngi wax ci géej gi nangu di ngarañ suuf si. Mhm. mais nañu xool leneen inondation yi ñu nekk di amee aussi. Mhm. ci la bokk. Mhm. lu tax parce que bu fekkee di seetlu na inondation yi lan moo ko waral ça veut dire que ñun Sénégal tey jii nii li ñu nekk di dund. ñi fanweeri at ak ñeent fukki at ci ginnaaw suñuy maam ak suñuy waajur daan ñu ko dund lu tax pourquoi parce que dañu nekk ci li ñu tuddee benn processus d'accaparement goo xam ni ana fépp fu ñu gis poq suuf mm. ñi ngi koy jël di ko immatriculer di ko jaay wala di ko def leneen de sorte que ñi ngi dem di tabax nit ñi dëkkuwaay yi nga xam ne ci ay zone non édificantes yi la absolument te it loolu bu weesoo mm-hmm. nañu xool li ñu nekk di def ñu génn rek ci mbedd mi fii nii rek mm-hmm. xool li fi nekk ci mbuus mm-hmm. ane loi bi interdit dem ci walu plastique voté nañu ko bu yàgg mais téwul tey ji ni bo génné légui ni bo jaay ci mbuus lañ lay jox absolument c'est-à-dire que euh, respecté wuñu loi yi nga xamantene bi voté nañ ko et puis les euh, lois de la nature aussi la ñëk baña respecter a mm-hmm. voilà bu fekkoon demone nañu respecter au moins les lois de la nature mm-hmm. de sorte que ku nekk la nga wara def boko defé nañu xol usine américain tey jii nii dof bi jité États-Unis mm-hmm. dama américain yi jéggal <laughs> uh-huh. euh, ma ngay delloo nit ñi ci ginnaaw non seulement nee na du respecter accord de Paris bi nga xam ne signé nañu ko ci euh, COP 21 bi waaw mais d'un autre côté aussi pour moom jàpp na ni que pour relancer économie américaine bi il faut que mu utiliser ay ay gaz fossile yoo xam ne mhm. waaw lu gaz gaz ak pétrole mhm. alors que mën nañu am énergie ci yeneen yu dul yooyu waaw mu mel mhm. ni nag vraiment defe naa ne mënoon nañ fi toog di di débattre ci lii mais ñi may wax de l'autre côté léegi mu jeex donc ma bàyyi la une dernière question ak euh, madame Woré Gane d'accord mm. y'a xam mm. madame Woré Gane gis nañu tamit bi gouvernement wu Sénégal jëlee ay matuwaay foofu ca Saly gis nañu yenn hôtel yi nga xam ne fa lañu ñu nekkoon nag dëkkuwaay yi ñi ngi am ab péex jëmale ko ci wàllu woowu bu baax lan mooy sa gis-gis ci loolu. non euh, loolu ay exemple la. parce que mhm. yow xam nga ne euh, Mariem que projet sali ak Thiawlène test la woon. Mhm. dañu ne euh, le fonds d'adaptation dañuy tànn dëkk boo xamante ne dañ koy jox 10 milliards de francs CFA mu doon ñaata non cinq cinq millions de dollars. mu nekk 5 milliards de francs CFA. Mm-hmm. ñu ne dañ koy testé si benn dëkk. Mm-hmm. Sénégal yi njëkk a tànn ñu def exemple boobu def Saly. Mm-hmm. def Thiawlène def Joal. waa dëkk yépp ñëw nag di seetaan li fi xew. parce que loolu dafay nekk exemple boo xam ne Sénégal bu ci jàngee. war naa mën a régler problème érosion yeneen dëkk. ba ñuy jàngat yeneen. parce que xam nga ne chercheurs yi fi nekk. ku mel ni Pape Goumbalo wala waa centre de suivi écologique dem nañu Guinée Bissau dem nañu ba Bénin dem nañu ba beneen dëkk Togo parce que dañ hein, une mission d'observatoire du littoral donc waa Sénégal mhm. ñoy yëre yoyu ak wa UCN ñom Racine kan dem ba Guinée mhm. dem ba Togo dem ba Burkina di jangal ñooñu li xew Sénégal ci affaire érosion kon nag ñu gis nag nekk vraiment ay ay jéego yu am solo vraiment euh, Sénégal mi ngi ciy jàpp ba sax di wàlli ci yeneen dëkk yi euh, mbokk yi mënoon nañ fi toog di gën a waxtaanee li nga xamante bi mooy ngarañu suuf si waaye dafa fekk ne faaw nu xuus ci yeneen sujet en tout cas euh, Mariam ñu ngi lay remercier bu baax a baax madame Waré Gana doyaluñu nag ci waxtaan dëgg yàlla ci waxtaan bi waaye nak dëgg-dëgg lañu lañ ñu fi taataan ci yow defe naa ne am na njëriñ solo parce que nag am na information yu am solo yu fi génn mm-hmm. ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax baax nga toogan ci sun plateau mbokk yi ñu xuus nak ci émission tam-tam ñëw ak yéen ci littérature and ci ak suñu xarit Abdourahmane sànq maa ngi koy wax Abdourahmane ñew ak ñun nak ci li nga xamantene bi Sénégal ñak nako muy euh, ku mak euh, dal ku nga xamantene bi poète le euh, vraiment homme de lettres critique littéraire la professeur philosophie muy Hamidou Dia conseiller spécial du président de la République ñu né nak mémoire vraiment nation bi yëpp wax dëgg yalla saluer nañ ko ñi ngi ci wax bobu ba légui waaye

Euh, livre mo ñu et lolu mo indi relations relation yu parce que Amidou euh, def 17 ans en France il am une longue période bi nga xamni mo association des écrivains en France mo doon suñu représentant ce qui fait que c'était le point focal un grand poète d'abord poète là, parce que ñom ñoo jëk formé

affaire pété terroir beeg yooyu. les sanglots de l'espoir ci ci gëna a mag ci œuvre bi la vraiment parce que foofu la euh xarañu poésie ko dafa woné ni euh, poète bu lyrique la parce que euh, lyrisme ci poésie mooy gëna collé ci poésie africaine ndax nga xam day am image le rythme day am image am rythme am symbole yëpp la bolé def ko ci euh, xalimaam boobu génne nous mujj génne aussi dafa panafricanisme c'est-à-dire mu waxloo ay africain yi nga dañu dañu gëm panafricanisme te loolu moom la du corps bi président ni vraiment euh, dafay saluer mémoire patriote bi mais mémoire panafricaniste parce que dafa gëm loolu xam nga dafa am chance d'abord mu bok ci ñi que nek parrain parrain la journée internationale de l'écrivain africain xam nga journée internationale de l'écrivain africain AS mom ko euh, Union africaine moo 24e édition bi mom mo doon parrain bi mu journée de l'écrivain le 7 novembre mu xaw kii ndax distance bi ni mu xaw sore mars ba mu je vous promets, je suis malade, mais je vous promets de vivre jusqu'à cette période, Inch'Allah, pour être témoin de ça. Alors effectivement, on l'a rendu hommage. Boumagamak, fille, il était vraiment... Euh, on a fait une plaquette, on a fait un film sur l'événement. Euh, et pendant deux jours, il a été vraiment... Les écrivains africains l'ont fêté, pas sénégalais. La africaine des écrivains, nous avons fêté avec écrivains sénégalais avec vraiment le président étant son conseil, avec vraiment foutu ci à à nous bu baax comme mon su conseil conseiller ngeen ràññee kon nag man xam naa ni jóobuma ci son choix Du ko euh, à RTS parce que euh, collaborateur bu RTS c'est un directeur général Racine Talla xaritam la woon ni yaayam la sax euh, Amidou donc euh, euh, di ko jaale toute la communauté artistique di ko jaale président de la république parce que aussi xaritam la woon magam la comme ni mu ko waxee démb mais conseiller am la woon aussi donc ñun ñoo perte ku mag parce que Amidou dafa doon lien la woon moo doon nekk ci diggante bi tra trait la woon entre ñun écrivain yi te pas rek yi communauté artiste bi ak le président ak l'autorité centrale mu def ci liggéey bu rafet waaw yal na ko yàlla xare àjjana mel ni nag ci adina lolu mo am solo def lu nga xamante ne bi euleuk netali bi dana rafet euh, wax nako euh, vraiment te defe naa ne ñëpp sedde nañ ko euh, Abdourahmane mu nek sank ñu ngi koy waxtu duñu tay di ko wax mu nek une grande perte pour le monde des arts waye pour sénégalais yëpp en tout cas au nom de toute l'équipe de la RTS2 ak le groupe RTS ñi ngi jaale képp ko nga xamante ne bi xaritam nga won lecteuram nga won wala dal vraiment djégé won nga ko yalla nako yalla yàlla xare ah, ah, ñi ngi koy ñaan fi mu jëm gënal ko fi mu jóge mm-hmm. yalla téwé ko ci àjjana yu gën a kawe. waaw mm-hmm. Hamidou oh, Dia euh, dafa doonoon koo xamante ne nii intellectuel la woon. Mm-hmm. maanaam il doon jouer rôle intellectuel boo xoolee euh, keroog bi ñu wanee levé du corps bi rassemblé nañu bari ñi nga xamante ne bokkuñu sax ay parti politique ay opposants lañ. Mm-hmm. parce que euh, intellectuel bu nekkee en vie buy dund mën nga bañ a jubóog moom ci ay idée parce que moom c'était un agitateur d'idées def na ay au-delà de son manam bo tegee li nga xamante ne la ci wal littérature poésie yum bind anthologie euh, poème bi bind etc contribuer régulièrement dans la presse sénégalaise di soulever ay idées di débattre etc. et ñëpp mën nañ ko reconnaître manam fécondité intellectuelle xarañ bi mu amoon ci walu xalaat génn ay xalaat yu bees ak euh, qualité écriture am aussi euh, nga xamante ni. Euh, sans doute suñu invité bi war na ci gën a mën a sori mhm. nga xamante ne moom moo euh, édité livre bi nga xamante ne moom la sans doute moom mooy livre bi gën a mag moom mooy les sanglots de l'espoir les sanglots de l'espoir nga xam da ko Harmattan Sénégal moo ko réédité waat mhm. jërëjëf Abdourahmane mhm. da ngeen may permettre d'abord ma euh, jaale Sénégal gi yëpp ak àddina gi yëpp ki nga xam ne mooy le professeur Hamidou Dia mi ñu dëddu ci fan yi ñu génn day doon nit ko xam ne sama mbokk la woon d'une part mais d'un autre côté aussi amoon cofe lool ci liggéey gi ñu nekk di def mm-hmm. certes que fii ma toog nii mm-hmm. am na ñu ma ko gënoon yelloo pour ñu ko gën a xam mm-hmm. pour mën a wax euh, ci moom ak euh, professeur Ibrahima Sow daan ci dellu tey it léegi mais day ko xam ne man bi ma ñibbisee en 2009 installé wu bokk na ci pilier yi nga xam ne dañoo jàpp ci kër gi. Hmm. Uh-huh. bokk na ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ci kër gi. Uh-huh. ba kër gi mën a en fait avancer. Uh-huh. wax ci professeur Hamidou ja dana doon lu jafe. mais tey du doon lu jafe. pourquoi parce que Abdourahmane dafa utiliser sànq benn terme ni intellectuel la. intellectuel du koo xam ne rek da ngaa bëri li au Sénégal, on a beaucoup de diplômés, mhm. mais on a un Amidou Dia parmi les intellectuels que compte notre pays. Mhm. Pourquoi Parce que nit Kamné, Kalatam, que Khalatam, xalaatam jubbal mhm. il est romancier. l'une de ses plus grandes œuvres moi, les sanglots de l'espoir édité en 1987. 87 87 moo première édition bi aux éditions Larmatin à Paris. te bi ñu ci foog naa y a deux ans mu ñëw seet si ma ne ma Abdoulaye léegi dama bëgg ñu rééditer livre bi mhm. Nous xool effectivement que c'est un livre bo xamné mi ngi mel nii ni si la ko bind lolu mom moy en fait qualité d'écrivain xam nga bu ngeen seetee œuvre bu mag moy œuvre go xamné ne mën nañu ko bind ya 50 ans mhm. mais say boko boo mhm. day melni nii léegi lañ ko paré bind comme l'aventure ambiguë comme l'aventure ambiguë Cheikh Hamidou Kane aussi Cheikh c'est son oncle mhm. non seulement oncle mais ñoom ñoo bokk benn fiñu joggé effectivement de Saldé effectivement té mom il est d'ailleurs mom il est originaire surtout de Djarengel. Mm C'est un village mhm. de là-bas. Mm Et c'était un esprit tellement fécond et tellement brillant que bi mu nekkee xale. Mhm. Mhm. dafa am sobriquet bu ñu ko collé woon. Jinne Djarengel la ñu ko doon wax. Jinne Jinne Djarengel. Djarengel c'est le nom de son village. Il mu jógee lu tax loolu. nit la woon koo xam ni am na lu ko yàlla mayoon ci wàllu xel. bu fekkee ni œuvre bi. wax nañ ci lit roman. mais il était essayiste également. d'accord il poète. était mmh. poète mmh. il était critique littéraire critique littéraire nit la koo mm-hmm. xam non seulement pek ne lepp lo xamné mi ngi jëm ci walu littérature mm-hmm. mais yemu ci mm-hmm. am ay documentaire yu ama ama am solo yu nga xamantene bi def nako donc mu wa kon que euh, Abdourahmane comme euh, Nico euh, le professeur Diallo waxee léegi yaakaar naa ne fépp d'al la Hamidou Dia doon intervenir mhm. jëmale ci wàllu littérature vraiment muy saa su ne li ñuy wax mu nekk lu am solo y'a ngi si tax téere benn mhm. téye benn téere muy mhm. daal solo wa téere bi nga xamantene, ne mu ngi ko écriture et liberté maanaam ñaari tur la le yo ne vraiment méngoo na ak personnalité à Hamidou Dia et ce n'est pas par hasard nous choisir quoi mhm. parce que philosophe la woon comme ni mu ko waxee sànq mhm. et philosophe par essence mooy ki nga xamante ne nii xeetu xam-xam yëpp la la la géejoo mhm. donc euh, def na documentaire am na benn documentaire boo xamante ne ci Ndiaga Mbaye euh, na ko def suñu RTS diffusion na ko pour rendre ko hommage c'était un philosophe et ci loolu Sénégal aussi perdaat beneen philosophe boo xamante ne philosophe bu mag euh, ñu koy wax sànq euh, professeur Ibrahima Sow moom ay ay bind yu bari yu mu bind jëmale ko aussi ci wàllu identité bi nga mm-hmm. xamante ne aussi soxaloon na trop euh, Hamidou Dia sur mm-hmm. wàllu aussi culture africaine mm-hmm. def na benn livre bu célèbre d'ailleurs bu ñu tudd si wàllu maraboutage société sénégalaise et cetera ñu bàyyi professeur Diallo docteur Diallo nga xamante ne xam na professeur Sow moom itamit mu wax ñu tuuti sur ça dimension mhm. philosophique et intellectuelle effectivement mhm. euh, je voulais juste aussi tenue tenue ñëw ci feu le professeur Ibrahim Sow mhm. faire un lien entre le professeur Amidou Dia doon Dundou. en fait culture bi nekkutoon pas loo da koy théoriser da ko pourquoi parce que le président de la république jël ko teg ko ci wetam mënoon na rompre lien bi nan mangi conseiller prince bi rek. di dayu nopp président rek. Mhm. mais Amidou Dia. Mhm. mësuloo ko invité mu gàntu la. effectivement Abdourahmane mi sànq mhm. wax na ni que ci fani yii dong la gëj ci librairie ba. ñun cérémonie bi ñu mujjee donte ni dafa febaron mais cérémonie yi ñu mujj dafa ak Abdoulaye Elimane kan dafa déplacé wu ñëw mo moo ñëw présider ko. effectivement nit la koo xam culture bi da ci doon dundu te nit du ko woo position ba mu amon du tee mukk nga woo ko mu ne la non je vais voir. mu nekk ay qualité yu nga xamantene bi yakarna na di ci di ci baamtu dafa am solo waaw nit la ko xamni japp jàpp naa ni que war nañu jang ci mom lu bare. Mhm. professeur Ibrahima Sow mi nga xamne mom ci samedi bi la dëddu adina mhm. professeur Amidou Dia génn genn euh, adina dimanche mhm. ñom ñaar daanaka euh, ay maas la ñu parce que je pense que ñom ñaar entre 64 et 65 ans la ñu am jàngandoo philosophie bokkondo yenn combat yi ñu doon def le professeur Ibrahim Sow nit la une personne entière muy nit ko xamné ne euh, la mu yéene bopam bu la loolu pourquoi parce que en fait li ci des bopam la mhm. yépp mu def ko ci laboratoire bu mag mu ci IFAN mhm. ñu tuddee ko laboratoire de l'imaginaire mhm. mu doon ko jiite di ci def gu am

li mu jàpp ni que gëm na ko. Hmm. ak nu suñu société sénégalaise bi war a doxee. très bien hmm. combat bu mujj bi mu doon def. Hmm. muy benn émission bu mag bu mu defoon. mooy combat bi nga xam ne doon na ko def pour jéem a

dañuy am seen concept yu aérien mhm. euh, euh, Ibrahima Sow moom mooy njëkk philosophe yi nga xamante ne culture africaine ci yenn réalité yi comme li wax ni affaire maraboutage mhm. xalaat na ci day waxtaan ak ñii di liggéey ci wàllu jinne yi aussi waaw di wàllu wàllu seet wàllu jinne yi wàllu ah, jinne yi des débats et des mm. discussions ñu ah, ngi doon préparé foog naa su ma jumul benn livre ak mm. Ibra ak Iba Fall waaw jéem a comprendre ana jinne yi mm. parce que lan moo sonnul suñu société bi mm-hmm. liggéeyante yu bari yi Mm-hmm. nit ñi dof sans raison et mm-hmm. autre xam nga mënoon tok né ne moom. université est-ce que mi ngi doon est-ce que mi ngi doon bind wala ye bind mi bind mi yegg. amna na livre mu ci bind déjà amna na dinañ ko fi wane xamna ci fi ñëw inshallah amna am na livre mu jotté bind. Mm-hmm. donc Hamidou Dia aussi de la même chose daf ñu décomplexé par rapport à suñu culture. philosophe la mais il a parlé de Ndiaga Mbaye

mu nekk lu écriture et liberté très bien mu nekk lu nga xamante ne bii xam naa ne xale yi dinañ ci am ay njàngat bu baax ñi ngi mm. euh, mbokk yi le docteur Abdoulaye Diallo euh, na ma ko waxee woon sànq rek saa su ne bu ñëwee la muy ñëw day am solo te xam naa ci sa émission certainement euh, ay téere professeur Ibrahima Hamidou Dia ak Ibrahima Sow xam naa certainement di nga ci ñëwaat incha allah mm. prévoir nañu d'ailleurs mm-hmm. pour lu en tout cas suñu enregistrement yi di ñëw mm-hmm. faire un plateau spécial pour rendre leen hommage mm-hmm. pourquoi parce que ay nit la ñu ñoo sommes au bureau yi au niveau de en Sénégal mhm. semaine gi doo altiné ba euh, gaawoo. Mhm. te gisuloo leen ñoom ñaar. très bien très bien nit la ñu ñoo xam ne ñi ñaan yàlla yàlla na suuf sedd. amin amin amin en tout cas ñu ngi euh, lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nu xuus nag ci émission euh, tam tam ñëw ak yéen ci musique d'ici et d'ailleurs ànd ci ak suñu xarit Del malik Del malik la mu ñu indil tey dañuy àndandoo dem xool benn talent ba nga xamante ne bi jeune artiste sénégalais la ma ngay évoluer fële ci dëkk bu ñu naan Japon ñu ñëw nag présenter li nga xamante ne bi moom mooy. Euh, single am ñu xool nan ñu ci euh, euh, Del indil dellu waxtaan ci si plateau bi. salaamaaleykum salaamaaleykum man la Mara Star maa ngi nii ci RTS 2 ci émission Tam Tam une rubrique euh, musique d'ici et d'ailleurs. Mara Star c'est un jeune sénégalais euh, bu débuté carrière ci fetch manam danse fetch ballet musique sabar lépp luy xeetu fetch fait ko jaar Oscar ba yàlla def par la suite euh, ma ci la voyagé dem Japon nak euh commencé entamer entamer suma carrière solo ci musique soo nekkee xale jang ku ci nekk da ngay am lo bëgg peut-être bi may jàng bëggoon naa nekk mais pas musicien mais par la suite bi may suis dem ba suma commencé di liguey à la Seras musique daf ma dab parce que suñu famille xamuñu way xamuñu teug xamuñu fecc mais yalla mo def seppi ma ci man def ma artiste moko ci sante nak bu parce que regretté wu ma ma artiste. ñi ma ci minantelul presque wul parce que dama don fetch, fetchal na ci kat yu bari clip mais amna ci ño xamanteni ay Yves momu ñëk njëkk télé Papa Ndiaye clip bam yi ma bari wul Salam Diallo aussi la même chose suma xarit Sori Ba ak ay jeune artiste yo xamanteni euh ay xalé lañ mën li ñuy def nek ci banlieue bi aussi. single bimana len leen mi ngi tudd work manam liggéey en anglais parce que nit ki soy way pour man li nga gëm ngay way parce que nit ki way lo gëmul té man suma papa ak suma yaay dañ ma yar ci liggéey lolou lañ ma jangal, motax bima commencé ni dama xaar ma euh, def suma carrière solo ma commencé ko par le titre Wok maanaam liggéey lépp lu fa am andi Japon manque depuis début 2015 Amna ay festival yo xamante chaque année fay am mais tout le temps Amna ay festival yu ma fay fekk deux ça fait deux fois festival yu mak yu ma fay fekk elle s'appelle euh, Fest Africa comme culture africain lañuy wone bir Japon dañ may téléphoné contacté ma ma répété ak suma ay japonais yo xamante ni dañuy dund culture Afrique jàngal leen ay pas de danse africain ci ballet ak sabar. suma projet ci walu musique mom bi ci gëna a mag mooy au fait ma ngi préparer inshallah suma album d'ici muy paré su yalla ma def su yalla defee li gën dina def le tout le tout ba. taxawal studio bo xamanteni ni pour les jeunes talents yi nga xamanteni dañu bëgg musique te amuñu moyen bu len jappalé di remercier képp kuy bëggee Mara Star ma ngi lay fekk fi nga nek jox la ñaar loxo di la delloo njukkal di remercier Sénégal di ñaan Sénégal yalla fi jamm yag ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi Wasallam. peace and love Sénégal. wax dëgg yàlla yàlla na fi jàmm yàgg bu baax a baax loolu la ñuy ñaan mu doon nag artiste bu nga xam ne mi ngi évolué fële te euh, Japon euh, di Marastar indil ñu nag wook madame Woré Gana nga gis nag ne que vraiment c'est vrai que livre yi ñu ngay jàngale waaye tamit woy defe naa ne dafa war a tamit jàngale te ca biir woy ba mi ngi ci indi wook muy liggéey mu nekk lu am solo ah liggéey mooy dëgg uh-huh. <laughs> liggéey mooy dëgg parce que bu ñu liggéeyee du baax uh-huh. ndaxte sunu génération léegi xale yi uh-huh. il faut ñu gën leen a ñaax ci loolu parce que nga mën a siggi mhm. ndaxte ñun suñu dëkk dëkk boo xam ne même lu mu metti metti metti liggéey rek muñ ci génne mhm. tey maa ngi jóge AIBD jëm Dakar mhm. te AIBD Dakar ba ko daan def day metti dëgg la n'est-ce pas te liggéey moo tax ba loolu taxaw ba mhm. léegi ñu mën a nekk international ba ñëpp man man man man see jëriñu mhm. Mhm. léegi xale yi nekk fii nekk ci mbay mi wala xale yi nekk ci environnement wala ay nekk ci pêche bi ku nekk fa nga nekk da nga war a exceller dëgg la da war a liggéey liggéey bi ba xamante ne liggéey bi si lay jëriñu samay doom si la ñuy suñu dëkk si la ñuy ndaxte Sénégal bu fekk ñun ñëpp nañu mànkoo bokk liggéey bi muy way muy leneen ak leneen Sénégal dina jëm kanam Sénégal dina gën a dootu dootu ruusati. déedéet te ruus la ñuy dëgg la ruus moom yàlla nañ ci yàlla musal docteur Diallo euh, nga gis nag vraiment woy bi nga xamante ne bi woy na ko muy tamit ay njàngat waaye xam naa ne ca armatan ba nga nekk saa su ne defe naa ne téere yi nga xamante ne bi ñu ngi leen koy indil pour ngeen édité ko fa mel ne toujours nag ñu ngi ñëw à chaque fois ci moowu société bi ak ci ay solution yi nga xamante ne bi war nañ ko mën a trouver pour vraiment àddina bi ak dundin gi gën a neex dundin gi li ko gën a tax neex mooy euh, li seen mm-hmm. jeune artiste bi wax. Mm-hmm. muy liggéey. Mm-hmm. gis nga euh, bu fekkoon ni ci société bi ñu nekk. ku nekk yaa ngi def sa liggéey. na mu waree ak fan ko war a defee. kon ndóol gi ñuy wax. je veux dire kon dañu koy dégg rek. gis ngeen réew tubaab yi ñuy xale yi di da wuuti. man historien la histoire lay jàngale ci professeur kii ci université de Dakar. Mm-hmm. en 1945 bi ñu génn ci deuxième guerre mondiale. Mm-hmm. nit ñi xiif da leen doon rey. Mm-hmm. amuñu woon bu ñu feebaraan amuñu woon lu ñu daan fajoo. mais dañoo am ay ñoo xam ne seen affiche de banderole de propagande yi dañu ko doon def di wane nit ñi ñuy wagasu. Mmh. nañu liggéeyi liggéey pour rebâtir comme et tey jii nii muy France muy Allemagne muy tous les pays parce que Europe bi muy génn ci deuxième guerre mondiale mmh. amuloon benn taax bu fa taxaw mmh. lépp maa bon comme Allemagne de tey jii nag suñu xale yi nga xam ne dañu yaakaar ni que seen teddaa ngi mi ngi fële ci bitim réew ne ñu jàpp ni mën nga toog fii. Mm, liggéey liggéey mm. ñàkk njariñu. absolument euh, ñàkk njariñu boobu am na solo Abdourahmane xëy na yow tamit nga am kàddu go ci sànni parce que comme ni ma ko doon laajee sànq le docteur Diallo. Mhm. yaakaar naa ne ci biir téere yi boo fa demee ah, ñi ngi ñuy euh, jàngal ci léeg-léeg ci woy yi tamit. et le mhm. plus souvent ñoom itamit ñi ngi jàngal parce que defe naa ne ñëpp danoo àndandoo bëgg defar rek.

waaw liggéey urgence la. absolument pense que loolu <laughs> par rapport ak li nga xamante ne moom la gis léegi Mariam Mbacké. yaa xam liggéey urgence la ñàkk mhm. jëriñu boobu man ci lay dellu si mhm. ndax ndaw moom lépp loo mënti am te liggéeyoo. Mhm. xamal ni ñàkk nga. parce que liggéey boobu ngay liggéey moo lay jariñ. ëllëg jariñ say njaboot. jariñ ñeneen nga doon référence yi nga xam ne. ci ngay tàmbali ngir mën a dem. bu ñu xoolee gouvernement Sénégal ci la ñaax président a a liggéey rek may gërëm maram Woré euh, Ganda Seck parce que lu mu wax moy nañu sigi te yakana né pour nga sigi faaw ci la ngay liggéey ak numu mëna doon nga fasiyéné jël ci pé te na lolu amna solo mbokk yi ñu jéxal ak vue sur la toile Mm-hmm. daal xam naa ne li ngeen gis ma gis ko du ma def rek lu dul jox kàddu gi madame Woré Gana Seck lan nga gis ci vue sur la toile bi. non non euh, euh, du pollution bi la ñuy wax. waaw man loolu moom a daal ni <laughs> parce que suñu dëkk dañu commencé. Ah ah. terre bi. Ah

ñun daal euh, créé nañu benn forum bu tudd forum national du littoral ndar ba Casamance. Mhm. mais dañu xalaat ne comme que léegi projet bi ndar la. Mhm. léegi ñun ñëpp ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci affaire érosion côtière. Mhm. ñu boole ñu ci. task force yoo xamante ne suñu idée xam nga xalaat mooy tax. ba nga waree juum doo juum parce que kii def na ko defaat ko. donc loolu la ñu ñaan ñu mën cee liggéey Sénégal ñoo ko bokk bu fekkee ndar la ñun ñëpp dem jàppale waa ndar ba érosion côtière bi ñu ñu mën kaa saafara bu ñu paree si ndar dañu jël yeneen dëkk mhm. identifier ban dëkk moo gën a liggéey bi gën a tar ñu dem def foofu mhm. mais ñun tam au niveau international ñu comme dañuy def ay plaidoyer di dem ci dëkku fii réunion am barke démb bon la woon mhm. président de la république mu nga woon bon ñun sénégalais yi matoon nañu soixante wala 70 sénégalais à la COP 23 waxaat nañu ñun Sénégal mooy suñu problème C'est suñu mm. problème érosion côtière la. Mm-hmm. suñu problème moo di nan la ñuy def ba fond vert climat mën ñoo gën a mm-hmm. parce que am na projet 10 millions de dollars am na 250 millions de dollars am na 250 millions de dollars mais loolu day fekk ñu accrédité suñuy banque suñuy banque yi fi nekk. Mm. mooy euh, crédit Agricole, agricole wala banque CNCA wala banque euh, BND, yo xamantene ne. Mhm. nañu dem accès si fonds yo xamantene fonds yu takku la yu mën a jàppale xam nga ñi wax nañu 10 milliards de dollars. waaw wala 10 millions de milliards de francs CFA. wala 17 mhm. milliards de francs CFA yu Jim Kim joxé mhm. ak euh, Macron. mais ñun am nañu fonds bo xamné ne fa dem. millions de dollars mais loolu si banque yi lay jaar. te hmm. banque yooyu dañ leen war a accrédité muy banque Sénégal yi nga xamante ne. d'accord war nañu mën a dem outil fonds boobu. pour mën a ah. liggéey suñu tefes. très très bien am na solo waaye population yi nag lan nga leen di wax. non population yi ñun ñu ngi ciy liggéey comme je te dis euh, euh, euh, plaidoyer bi ñuy def. Mhm. premièrement dëkk yi nga xamante ne dafa am ay suuf nee nañu ñu bàyyi leen tuba suuf si si loi bi mu ngi ci. nee nañ leen dafa am ay brigade mhm. brigade boo xam ne day tere ku tëb suuf si mhm. nee nañu charretier yi tëb suuf dañu war a immatriculer dëkk yi tefes yi mhm. seen charretier bu charretier bi ñëwee ak immatriculation ñoo xam ne kii moo tëb suñ jàpp ko mais defaguñu ko wa am na brigade verte gendarme dañ la war a jàpp am na yoo xam ne bu ko loi bi tere da nga koy bàyyi mais nii dañuy jalgati naan da bi ñu dee bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi tubba suuf mais boo tubbee suuf ba amatuloo fu sa gaal costé nan ngay def dina doy waar dina doy waar jënd na raar si loolu la ñuy liggéey. très bien ñaax nit ñi jàngal nit ñi ba xam ne littoral bi ñoo ko moom. Mm-hmm. te littoral ba nañ koy tuba di ko yàq. Mm-hmm. wala di di gor gàncax bi nekk si littoral bi day indi ay jafe-jafe. très bien day gën a tar day gën a metti. en tout cas daal xam naa kër yi gën a daanu. Hein? géej gi gën a kaaya euh, wala ni ñu koy waxee. waaw te am na am na ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy euh, tabax. waaw ci tefes gi. Mm-hmm. wala di daal tabax ci sono yi. Mhm. parce que ndox mi am na fu muy jaar. bu mhm. géej gi feesee am na ay sono. Mhm. sa man maanaam boo jëlee canal 4 bi waaw canal la woon. parce que canal 4 dañ ko tabax. mais au début dex la woon. boo jëlee bar gi dex la woon boo jëlee somon dex la bu géej gi feesee day dugg si dex gi mais bu fekkente ne géej gi da dex gi da nga ko tabax. Mhm. ndox mi bu yékkee. Mhm. fan lay dugg. day dal si kër tout simplement en tout cas mbokk yi wax ji leer na euh, mhm. ñi ngi gërëm di sant bu baax a baax madame Woré Gana euh, Seck mi nga xamante moy directrice euh, Green di vraiment xeex bu baax a baax pour dal vraiment ngarañu souf seeg yeneen yi nga xam concerné na environnement bi mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ba paré nak jéem xol nak lañu def pour mbirum matuwaay yi en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant c'est c'est toujours un plaisir de vous recevoir merci jërëjëf Ñi ngi euh, remercier aussi euh, le euh, docteur Abdoulaye Diallo waaye laata nak ngay peut-être lancer ben dernier message suñu vie sur la toile bi yow lan nga ci gis. non mais moy li mu wax rek. Mhm. environnement bu ñu seetloo tey jii ci Sénégal. Mhm. xam nga moom wax na impact impact bi am. ci souf si ñuy kii. Mhm. man njaboot la man sama doomi duñu sabu duñu sango sabu ñu sangoo am saabu. L'autre parce que environnement bi dafa polluer de sorte que mhm. ay allergie kese dëgg la les ñuy nekk te loolu ci mhm. xam nga da ay vue d'esprit yo xamné dañu yakane da sori ku nek yang koy dund fa nga nek dëgg la ni bo nii nit ñi di wokkatu wala nga génn ko ci gis mi ngi sëqat. wala ko ci gis mi ngi am végétation au niveau des ki ci bakkanam. lolu dara waral ko luddul environnement bi nga xamné mom mo changer changé. waaw te nag ñun ñoo nek ci environnement waye ñi ngi yak environnement bu bari ñu ci bayyi xel parce que tamit ça y va de de notre santé tout simplement en tout cas ñi ngi lay remercier le docteur Abdoulaye Diallo di fatalis sa diffusion émission kañ la. Euh, c'est euh, un dimanche par mois à la mm-hmm. RTS 2 à 17h. très très bien voilà à l'émission Le Monde des Livres. merci mm-hmm. beaucoup mm-hmm. merci beaucoup et bonne continuation Abdourahmane ñu ngi remercier plaisir de te retrouver Inch'Allah, samedi. Oui, Inch'Allah, sans faute. Et nous avons eu di gërëm mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñooñu dañu très bien. Euh, di avons eu ñëwaat ci le professeur Ibrahim Sow incha parce que voilà. merci di citer benn jeexale benn citation de Amadou Dia. boo mhm. xamante war nañ ci bàyyi xel mu ne écrire c'est interpeller le néant. écrire c'est interpeller le néant merci beaucoup ci citation boobu la ñu ngi lay sant bu baax a baax waaye di gërëm Mariem Meng mi nga xamante ne bi euh, tey dañu doon waxtaanee ak moom ngarañu suuf si merci Mariem plaisir de te retrouver la semaine prochaine merci beaucoup yaa xam mhm. ngarañ bi lu am solo la nañ ci bàyyi xel bu baax nit ci tamit jël seeni matuwaay bu baax tamit lu am solo la très très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant waaye tamit euh, <laughs>